والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw buñ yëkkatee kàddu nuyu ak cant ak ngërëm jëme ko ci mboolem bokk jullit yépp jëme ko ci mboolem bokk taalibe bi yépp jëme ko ci mboolem bokk réew bi yépp ñi ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul ki nga xam ne mooy boroom liggéey bi di fi jëmmi Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf di a Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na suñu boroom guddal aw fanam te dolli wéram dolli kattanam ba mboolem naal yu mag yi mu am ci lislaam lépp suñu boro may ko kattan ak wér ba lépp mottali ko ni mu ko bëgg ci barke Sëriñ Tuubaa kon li ñu tënk rek ndax li ëpp te lañu ñoroon ci li ñu waroon wax joxoon nañ ko sunu sët bii di Serigne Cheikh Ka xam ngeen ne sëtu Cheikh Mahamadou Fadil la xam ngeen ni mu demee lépp wan naa ko sëriñ bi mboolem ñaqaat yi yi nga xam ne wax nañ ko yépp muy lu soxal àdduna di lu soxal jamono lépp sëriñ bi rafetlu ko bu baax kon lima ma ciy teg rek lu mboxoon rek jërul dellu si waat iza qaalat xasaami fa saddiquha inna al qawla maa qaalat hazaami kon Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na mi ngi nuyu bokk jullit yépp alaalamu islaami yi bépp di leen ndokkeel ci bis bu màgg bu tedd bii nga xam ne danaa ci dellu siwaat mooy sunu lépp di bisub Sëriñ Tuubaa mooy bis mi nga xam ne moo sàkkoo ne na ko ci ñëpp santal yàlla suñu borom sëriñ bi nee na kon li jiitu ci li muy def mooy ndokkeel ci ñim bokkal lislaam rawatina mboolem ñim seqal diine lislaam ji di këri këri yi te ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo bokk liggéey bi nee na mi ngi leen di sant di leen xamale seenu cant lottu na ci seen ngërëm yi amu ko waaye ñu ngi leen di bàyyi ak yàlla suñu borom bi nga xam ne lam daale ci allasiina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna miisaaq wallasiina yasiluuna maa amara llaahu bihi an yuusala wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suual xisaab yàlla ngeen ci daje moom ci buñ ko tuddee rek tudd nañ leen ñun kon sëriñ bi nee na ngi koy yóbbanteeb nuyoo ak cant ak ngërëm di ko jëme ci ki jiite réew mi di président la république Macky Sall di ko sant bu baax ni ñu ko ko waxee bi ñu fi jógee bët ñoom rek ci bi muy ubbi liggéey hôpital bi ne ko ñaar rek laa la amoon ak cant ak ngërëm ak ñaan kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi koy sant bu baax di ko seeral taalibe sëriñ Tuubaa yi ndax moom lépp lu ko nit defal rek jëmmi sëriñ tax kon nag njaboot gi mu di taalibe sëriñ yi nga xam ne lu mu am sëriñ Tuubaa ko defal képp koo xam ne teg nga ko fa nga ko war a teg dana leen ko seere ñëpp bañ xam ko kon nee na mi ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal suñ borom mottali yéeneem ci réew mi doole ko kàttan ba lim bëgg liggéey ci réew mi rek mu àggale ko di la nuyu yoo sa cant bopp ndax jox nañ la diggal dëgg la ci biir yoon yi nga bokk waaye fi nga nekk ñëpp nga fa nekkal waaye wane nga ci sa taxawaay yaa ngi ko seq yëpp ba li am solo mooy yitte ak dogu bëgg def dara gis nañ ne lépp nag yaa ngi ko doon taxawal sa bopp ci ndigalam moom ba mboolem loo lu ci doon sa kàttan wala nga man ko rek defe nga ko ni ñu ko bëggee woon kon sëriñ bi nee na ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaaral di leen soññ yi nag ci li ci kanam ndax 2019 waxoon naa ko ci CRD màggal Tuuba ne leen buñ doxaatee ñaari at màggal gi dana dugg ci jamono ju xat ndax nawet bi booba xamuñu woon ne wér di gi am kon ñaari jafe-jafe am na ci kon sumb yi nga xam ne président bi mu ñëwee ci sëriñ bi wax na ko ko ndax man la fa sëriñ bi njëkkoon yónnee mën na ñaari at ba yàlla def mu dogu woon ci def ko far xam ngeen li xew ci réew mi ñu nangul ko ko it waaye ren jii ñëpp gis nañ xam ne taataay bari na ci dëkk bi te dëkk bi dafa rëy kon engagement yi nga xam ne yéen a ko fay def ren ji ñu ngi leen ci soññu ngir bëgg ñu ngi ko teg ci seen loxo yi ñu def ci yitte ak jom ak pësëf fexe ba nañ ko war a defee ak nañ leen ko digale ñu toppee ko noonu ba loolu àgg ndax jàpp naa ne bi xew-xew bi amee ba sëriñ bi yónni ma ba ma jox ko yow nga jox ko moom li ngeen ci defee ko ñëw ci màggal gi buñ ko tegee ci loxo yi ñu farloo noonu kon bu naganisee déwén dana fekk lu bari saafaraw ci kon nag ñu ñuy jox ndigal it nañu am farlu ci li leen seen kilifa sant ndax looloo koy jox ndam sëriñ bi nag ni ko waxee rek nee na li na ci kanamam di somb bi gën a rëy ci moom mooy université bi waaye bu université bi jeexee jàmm li ko gën a ñor ci ay yitteem mooy ñaari ndox yi ndox mi ñuy jëfandikoo ci biir dëkk bi ndax ñëpp xam na ne jafe na ci dëkk bi bu ñaareel biit mooy ndox mi ñu wal di dugg ci biir kër yi ñaar yooyu nag mooy itte yi gën a ñor sëñ bi ginnaaw université bi loola nag insha allah bu àndee dogalub yàlla mën naa am balaa yàgg rek danañ ci jëm jublu ci kon loolu waru war garu waru garu état la xam ne ni ñoom itam ñanca def nañ ci seeni plan ba incha allah danañ ci jëm waaye yoonu murid nag ni leen ñëpp maase ci xam ba sosoo ba nëgë ni mosuñoo jë mosuñoo rek wàcc seen loxo lépp lu leen mas nit mas di dimbale ci naka jekk ba nëgë ni dañ leen cee fekk te loolu ma ne si see joxe firnde yu bëri firnde yu bari tàmbalee ko ci jumaa njaarim ko Serigne santaane ak lam ca waxoon ne maa ngi leen di digal digal loo xam ne fu waaye jëm loo ko foo yóbbaale wax ju gudd la waaye dama ci tënk lu gàtt rek mooy lépp loo xam ne bëggati ngeen ko wala ngeen sumbati ko rawatina lu mel na néegu yàlla bii na ngeen ci def góorgóorlu seen kemtalaay kàttan def ci la ngeen man ak la ngeen mënut lu ngeen ci mënut ngeen dem laxasaayu wuti ko ci anam gu sell te foo ca seen kattan yem yem ngeen toog fa sëy ca allahu baax dafa suy yu soon te waaye maa ngi leen wattandikuloo lépp ndimbal loo xam ne bu leen fajalee seeni aajo it daa leen xañ seen ngor xañ leen seen jom tilimal seen diine wax ne yett yi nag képp kum ne ceew ku ne war ngaa fexe ba sàmm ko képp ku nekkul ci ko ne war ngaa fexe buutu ko kon loolu mooy jumaa njaareem ja ginnaaw mi tam njabootam gépp ku fi masa sumb aw sumb tàmbalee ci raay bi Touba bi bi ñuy autorisé ak Cheikh Mouhamadou Moustapha jumaay Touba ji dañ ne nañ ko ko may te xañ ko ko nañ ko ko may ndax munuñ ko ko gàntul ndax ni yoon wi te mi ngi mas ak waaye nañ ko ko xañ ndax nañ ci te condition yoo xam du ko mën mu fexe ba ànd ak taalibe seen jom seen yitte seen pëseef ba mu àgg ginnaaw mi tam ak Seex Muhammadul Faadil ñëw góor ay dëkk yu bare bare ngir bañ a xaaral kenn Touba Bogo Aliya Madina boobu fu bare bare lépp mu jëmee ko ci jumaa ji woo ci taalibe Sëriñ Tuubaa nanguwul sax ku yëkkati tabax ci biir dëkk bi ba yàlla def loolu àgg ginnaaw mi tam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw moo jëkk woote milliard ak genn wàll ba mu ko waxee nit ñi wax ne seen sëriñ bi de dañoo xamut milliard nu mu toll Cheikh Abdoul mbay mu nangu xol yu nangoo ko gën a wóor te xol yu nangoon nañ Sëriñ Tuubaa dootuñ gàttal ginnaawam itam Cheikh Abdoul Khadir Mbacke ñëw xam ngeen ne yàggu fi ginnaawam itam Cheikh Saliou Mbacke ñëw bam mu dikkee la mu ko fekk woon ci ay daara ëpp na fukk yoo xam ne fu ci ne loo ëpp ñëpp téeméer nit ak mu sancaat xel koom mu ëpp quarante cinq mille hectares wala mu jege ko woo ci taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ñëpp wuy si ko ci moo jëkk-jëkk mbay lu mat milliard ci histoire ci lu xam ci senegal somb ay somb yu rëy te mosu ko woote boo koy na ci assainissement bi ñuy wax tey Serigne Saliou mooy njëkk yëkkati xaalisam def ko ci ak yeneen somb yuñ def ci dëkk bi yëpp ci jumaa ji ba defoon ay naal yu rëy rëy ci fas yéene defar ay tali ci dëkk bi kon ba bàyyi fi lu fukki milliards nangam ci ay sumbam ngir jëme ko ci Tuubaa kon ñu yomb dimbali lañ ginnaaw mi tam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw wuutu ko ci liggéey ba moom itam xam ngeen ñaari at ak nangam la fi def lu matu ñetti at waaye lu fi jëf ci dëkk bi foo romb rek dañ ci teg sa ginnaawam itam ak Cheikh Sidi Muxtaar ñëw sumb Masaalikul Jinaan sumb liggéey jumaay Tuubaa ji àggale ko na comme ko fekk woon ci ay kilifaam ba daanaka bi mu fi bàyyi ko tuuti moo ca desoon mu wujj boroom kon kenn ku ci ne bala fi yàlla tegee la muy gàtt gàtt la nga la nga doon def mooy njëkkanteeg waxtu wi njëkkanteeg temps bi ngir def fi loxo ba at tukki kenn du ko fàtte ndax ñoom seen yitte jëpp mooy ngërëmu Sëriñ Tuubaa ba ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëw sëriñ bi nag moom bi mu dikkee baat bi mu njëkk a wax mooy amuñu compte Sëriñ Tuubaa suñ compte lu soxla rek nañ amul doogu dana àgg mu fekk fi bàyyi fekk fi ay somb yu rëy yu fi kilifaam nga Cheikh Sidi Muxtaar bàyyi mu mottali ko yëkkati sumbu université bi nga xam ne fanweeri milliard yu tegal lu bari la te boole ko mboolem li mu war def ci biir yoon yi ñu ko def yàqalu ko ci dara kon loolu la Serigne Touba tàggate yoon wi yoon woowu mooy yu leen teg kon nag Serigne bi nee na li nga njëkk a def ginnaaw bu sante kilifa diine yi ci seen wuusi wu sant itam ñi jiite réew mi ci seen taxawaay. bu bi ñu ànd ak moom sant itam mboolem ñi nga xam ne dañuy yëngutu ci wàllu politique ndax amul kenn koo xam ne ci ñoom ñëw fi feeñal yéene yéeneem ak yitteem sant ñi yëngutu ci wàllu politique te ci biir réew mi ba ci ambassadeurs yi ñëpp dañ leen bindoon ay lettre xamal leen da leen jéggal lañ leen ndax xam nañ ne fi waxtoo toll waaye am na ci ñoo ñoo xam ne seenu dogu ak seen yitte ak seenu bëgg dëkk bi tax na ñu ne lépp lu ñu nekk rek dañ koy ànd ak yéen kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñëw nag ci li waral bis bii mooy bisu màggal màggal gi nag bisub sant yàlla la sant yàlla nag bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg ndax bokk na ci maqamatul yaqin yi la in shakartum la azidannakum waaye ni ko ministère bi waaye xam naa tey da dafa ko jàngale kenn wala dara wa in tashkuru yardahu lakum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum foo dégg ak shukur ak kufr moo ci tekk kon ku santu yàlla rek nga ko suñu borom na xam ne lu jafe la moo tax mu ne alaysa allahu bi ala bi shakirin wax na it ne yamalu ala daawuda shukran kon cant ay jëf lay doon waaye du nekk lam ni kese am na fu ko Sëriñ Tuubaa wax dinaa ci del si wat sant nag ñetti xeet la cant gi nga xam ne danga koy def ci sa làmmiñ ak cant gi nga def ci sa xol ak cant gi ngay def ci say cër cant gi ngay def ci sa sa làmmiñ mooy wa maa bikum min ni'matin fa min allah cant gi ngay def ci salaam yi mooy la in shakartum la azidannakum cant gi nga xam ne mooy cëri nag mooy i'malu ala Daawuda shukran waaye nag wa qalilun min ibadiya shakur suñu borom xam na ne lu jafe la Sëriñ nag dafa dëgmal boromam laxasaayu ngir liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy bis bii tey ñu koy màggal mooy bis boo xam ne ci ku ko fàttaliku bis bu tiis la woon ndax Serigne Touba moo ko ñaanoon suñu boroom danaa ci dellusiwaat tuuti ba suñu boroom may ko ko mu jug ngir xettali xeyti rasulullahi sallallahu alayhi wa waxoon na ne bi may dem ci géej gi liimaan ak lislaam ak lihsaan ñëwuma ci nabiyul mursal ñëwuma ci malakul muqarrab kon nag lam doon wuti mooy lii ko suñ borom defal tey loola nag lépp ci ay waxam lañ koy delloo dara gënu ci wér waxi sëriñ bi sëriñ bi moo wax ne sababu xaybatiya an allaha araada an anaala minhu jaha wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi muy daraja ju muy am ak garaat bu muy takk ak xeetali xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne wax na ne bu demutoon ci géej gi ñëpp danañ def tanasuru wal hiyaasu billahi taala te boobaa ñëpp daañ dem sawara moom ci boppam àgg na ci wax ne law tanasartu la daxaltu naar wal hiyaasu billahi taala moo tax daanay wax na yoon yi nangu na lépp ba mu des tanasur tanasur nag mooy yor jikkoy tubaab yi ak yor seeru melokaan neen lu dul lool rek yoone attan na ko sëriñ bi nag wax na ne li waral tukki bii mooy ca ezel ba suñu borom bindagut aalamul mulk ci aalamul arwaax dafa dajale gaayam yu baax yépp yu tedd yépp yëkkati lu màgg lu kawe lu rëy lu kenn xamu nu toll wax ne lii ana ko ko bëgg ci yéen waaye nam kawe ak nam yëkkati ko ak nam jafe tax na kenn ñëwutu jug dëngal ko sëriñ bi nee na nag ba ma xamee ne suñ borom wax na ko ne laa xam ne lu mën a am na yàlla suñ borom xamal ko ne ko lii de képp koo xam ne andil nga ma ko danaa defal loo xam musuma ko defal kenn te dootuma ko defal kenn sëriñ bi nag ne ko wa inni alayhi la qawiyun amin àttan naa ko te danaa ko wuti suñ borom daalanteeg moom waxante moom ay sàrt ne ko bu waxtu wa jotee rek dangay yëgal sa bopp ne natt bi agsi na sëriñ Tuubaa na ci jom ji ak fitwa lépp mu dékk ko mooy samaaniya xijajan illa qalilan juróom-ñetti at yu néew yu manqué lu néew loo xam ne moom la suñu borom doolanteeg moom loo xam ne lépp ci biir ay noonam lay nekk ñu di ko gëccal di ko wax kàddu yu metti di ko reetaan di ko mbëllee lépp luñ xam ne luy naqar doomu aadama ñu teg ko ko lépp mu di ko dékku wax na ne tubaab yi de li may yàgg yàgg ci seen biir musuma yokkat musuma tayal musuma saali seen kanam suñ borom daa leen teg moom samaani xijata xijani illa qalilan yàlla suñ borom xamal ko ne ko no fa in admamta asran fa min indika loolu mooy ati gànnaar yi mu liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam àndaale ndam lii mu àndaale suñ borom mottali liggéey ba ca gànnaar moo tax mu wax ne man zanna zayri ribba aami aksasi mithla masiri rasa aami jaysasi tabata kawnuhu jahulan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yëku seyru ak sësini si waa jësa man li yaqaada baadu wadan na jësa kon gànnaar suñu borom da ko xamaloon ne ko mboolem di desoon ci lu baax ci kaw suuf rek suñu borom xar na suuf su tàbbal ko ci biir Sëriñ Tuubaa dem di ko jëli kon ak pay la fa doon jëli Sëriñ Tuubaa nag li gën a màgg ci ay turam mooy Abdullahi wa xadimu Abdullahi nag lu nuru lu lu yomb la te lu jafe abdullahi abdu aw mela la ci al ibaadatu al ibaadatu da am al ubudiyatu am al ubudatu am al ibaadatu mooy li ngay jaamu yàlla ci say cër al ubudiyatu nag mooy li ngay jaamu yàlla ci sa xol al ubudatu nag mooy yëg-yëg bi ngay am nga xam ne dangay dem ba lépp nga nangu ko doo gàntu dara lépp nga jébbal ko su borom xam ne lépp lu am yàllaa ko dogal boobaa moo tax suñu borom di wax ne inna ibadi laysa moo tax suñu borom bi di wax ne subhaana lasi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram loola itam moo andi fa awha ila abdihi ma awha xadimu rasul nag mooy wuutu ji Sëriñ Tuubaa wuutu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw suuf muy war a aar bindeef yépp war a xeetali yépp moo tax xam ngeen ne ca fu ne sëriñ yi nattu yu metti daa leen ko ko teg yoo xam ne doomu aadama attanu ko lépp ngir yàlla ko xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te wax na ne am na ci yoo xam ne bu bàyyoon mu agsi ci bindee fii rek asamaan ak suuf si day far kon lam waxoon rek bu dul bu dul bu dul koroon ak alxuraan ak xadiisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak njariñul bindee fi masaalihu ayaali wal ibaadi maa bittu fi dunya laylatan waxida nee na kon genn guddi sax du ma ko faral ci kaw suuf kon lim doon def lépp xettali xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rek taxum du ko def kon nag bis bi tey bisum ndam la danaa ci dellusiwaat ndax moo ko waxal boppam ndax at mu jot suñ borom doo ko ca daan nattu nattu yu diis moo tax sëriñ bi wax ne nabbahtukum mahan ala kaddin bada lii qabla an araar ara ridan mu abada bu ngeen gisee suñ borom defal ko loo xam ne mosu ko defal kenn te dootu ko defal kenn jaar naa suñu borom foo xam ne benn jaam mosu faa jaar ak moom moo tax yàlla suñu borom fayoo ko lii mu ko fayee ba addunay jeex ba addunay tukki ba ba ñuy wal buftu bi saa su xëy mbirum suñu Tuubaa day gën a yokku saa su xëy mbirum day gën a jag dañ xam ne kenn doonu ci dara Sëriñ Tuubaa ba muy liggéey àndut ak kenn astaxlisu li nafsi la wax àndut kenn nanguwul kenn yóbbaale kenn gungi ko tamayoon nañ ko ba mu tàggoog ñaari taalibe yu tedd ya Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Maodo Bëgge yi da leen wax ni leen dama ci mën tënk muy lu gàtt rek nee na na seenum xel dal ndax seen sëriñ bi tàggee na ko doon bu leen ko dégg mukk ci àdduna kenn kenn dégg ko sëriñ bi ne fa ci liggéey bu liggéey bu tedd ba ba tubaabee ci seenug mbon ak seenug mën a yàq ñu xëy xamle ne sëñ Tuubaa génn na àdduna fekk boo toog nañ lu ëpp at loo xam kenn xamatu ci sëñ bi dara ba ñëpp jaaxle waaye nga xam ñi àndoon ak sëñ Tuubaa seen pëstéef ak seen doogu moom la sëriñ Tuubaa defoon tubaab yi ñëw xamal ko ne ko kat sëriñ bi bàyyi ko na woo juróom bu tedd ba soxna Faati Isa gis doom ja mu mel na ku jaaxle ndax moom dafa amul sago ci sëñ bi tubaab yi neen sëñ tubaab da ko yar ba def ci moom jikkoom mu gis ko mu jaaxal di dugg di génn rek mu ne ko mbaa jàmm xew moom soxna Faati Isa mu ne ko ah neexut wax de waaye sama sëriñ bi dañ ne néewatul ci kaw suuf mu ne ko bu dee lool da bay boo nga woy ci liggéey ndax moom de lépp lu mas wax rek dana ko def te neewoon na neewoon na ma maa lay duggee ci sa biir bàmmeel te maa ngi dund kon wóor na ma ngi ci kaw suuf diir bu gàtt sëriñ bi yónneem leetar ñu xam ne sëriñ bi ngi ci kaw suuf ba sëriñ Tuubaa ñibbisi ba dem gànnaar ba dem ci yéen jolof soxna Faati Isa door noppalu sëriñ ko ci biir kon sëriñ Tuubaa lépp lu mu daane rek dana ko def sëriñ Suhaybu Mbàkke nett na ne Serigne nekk na ci gànnaar wax suñu Aliou Sey na ko Aliou wool ma fere yépp ñëw ñépp daje ba ñëpp daje Serigne bi ne leen lii ma leen di bëgg a wax de yàlla suñu boom damaa xamal ne ma dana ko limal ma ci yéen yi ne senegal jo yi nekk Njaambur ak Jolof gum tudd de sëñ bi ne ko moom sëñ bi ne leen li ma ci jublu de mooy yàlla suñu borom xamal na ma ne ma balaa nekkee si déwén danañuy fekk Sénégal ci ak ci yéen li ma ci jublu nag mooy bëgg ngeen xam ne lépp lu ma leen dell ni ngeen di gisee lii ni ngeen di gisee loolu ci kàttanu yàlla yit fii ma ko nettalee ba booba kenn du faatu yàlla dogal ci déwén sax am na ci menn mag moo xam ne dafa wari doon ba ñëpp di ko xaaru yaakaar ndey faatu waaye ci kattanu yàlla bu baaxu sëriñ bi dafa waraat ba sëriñ Tuubaa ñibbi si Sénégal ci ceeñ Jolof mu door a faatu mbirum ndox mi ñuy wax itam na ci seenum xel dal sëriñ Tuubaa lépp ñaan na ko suñu borom ci mat loolu foofu sëriñ te lépp suñu borom may na ko ndox mi dafa am taalibe bu jóge Tuubaa sëriñ Sonia boo ko daan nettali ñëw ci sëriñ bi njaareem sëriñ bi dafa bëggoon dëkk bi lool ku fa mas a bàyyi ko balaa wax ak kenn ki jëkk ki dëkk a lay wax mu ne anaka jógee ca sama pàkk bu tedd ba mu daal di ñëw mu ne ko nekk sama dëkk ba nu mu def kooka def ko xaw a desee xam waxin nee ko Mbàkke de dëkk ba de mu ngay ñàkkum ndox lool bopp sëriñ bi ne ko lool de dox na diir bu gàtt lu ñu netti le doon mu ne ko loolu de xaaral Mbàkke ku gudd fan loolu du ko fekke sëriñ bi ne ku gàttu ku gàttu fan du fekke dara ñu teg ci ay fan ñu teg ci ay fan mu faatu kon nañu wóor ne nañ am yaqin ci ne ni ko Sëriñ Tuubaa bëgg dana am lu ne nag bu ab bu ci dugub kenn mënta fexe mu am waaye li Sëriñ bëgg ci dëkk bi kenn mënta tee mu am loolu la ci seen xel dal Sëriñ Tuubaa daa waxoon ne tubaab yi de damay njëkkanteeg ñoom xol yi koo xam ne njëkk naa leen ci moom ñàkk nañ ko bu faw koo xam ne njëkk nañ ma ci moom ñàkk naa ko bu faw moo tax mu andi masruucul fawsayni matlabu fawsayni muy fawsul insaani fi dunia wa fawsuhu fi laaxirati tubaab yi li ñu indi mooy li ñuy wax fexe ba def nit ñi ay tubaab gëm loo leen seen masruux yépp mooy weddi yàlla ak liberté bu ëpp ak àq doomu aadama joo xam ne teguñ ko ci diine ak not nit ñi ak fexe ba jëfandikoo néew doole yi Sëriñ Tuubaa ca wet ga li ñuy wax badil lañu ñu andil badil bu ngeen demee ci tubaab yoon koy file alternative badil la ñu andil mooy ak njub nungoo liggéey waraaxe fii kulli xalqin xaq man xalaqa ak yi ngeen di wax sax mbindeef ma gën a woyof Sëñ Tuubaa da koy jox àq indi masroxa dimbalante moo tax mu ree duñ tumuranke duñ jaaxle lépp lu ñu yëkkati rek danañ ko àggale kon Sëriñ Tuubaa jàngal na leen not na leen bis bi yi la ci kon bis bi bisu ndam la bisu puukare la danaa ko indi firnde ji ci jeexital wax ji ndax xam naa ni jataay baa ngi bëgg gudd di fàttali rek li ma sëriñ bi gënoon wax ne naa ko fàttali nit ñi mooy fàttaliku li ñu fi indi te bàyyi ñu fi na ko sëriñ Saliou Mbacké daa waxee mooy jaamu yàlla suñu borom ndax suñu borom kat bi mu bindee doomu aadama yépp tax mu bind ko alxilaafatu wal ibaadatu wal imaara alxilaafatu mooy wa maa xalaqtu jinna wal insa illa li abudun wa is qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xaliifatan mooy alxilaafa al ibaadatu mooy wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduun al imaaratu nag moo andi lépp ci kaw suuf mooy huwa ansha'akum min al ardi wastamarakum fiiha Sëriñ Tuubaa nag waxoon na Sëriñ Mbàkke Buso ne ko yow Mbàkke yaa ngi nii li la sa borom diggale gi ci kanam li la sa borom ngi nii ci sa ginnaaw mboolem li bëgg te ko wut te di ko fexe te di ko sàkk guddi bëccëg te loolu mënoo ko ñàkk loolaa ngi ci sa kanam mu ngi ci sa mu ngi ci sa mu ngi ci sa kanam waxtu wala ñoo ko jëmtee la sa borom digal mboolem li bëgg te ko wut te di ko fexe te di ko sàkk guddi bëccëg loola nee na mutuma geesoo ñoo bokk fu jëm mboolem li ngay bañ nag te di ko ragal te di ko wattan guddi bëccëg lool ne la mutuma geesoo bokkuñ fu jëm waxtu wala ñoo ko nag jëm cee la la sa borom tere. mboolem li bëgg te ko wut te ko fexe te di ko sàkku dégg bëccëg loola ne la mutuma ak geesoo bokkuñ jëm mboolem li ngay bañ te di ko ragal te di lool na la mutuma ak geesoo ñoo bokk fu jëm mas naa wax ne yàlla suñu borom dafa bind ay ndigalam lënkalu ko ak mbégam bind ay teram lënkalu ko ak meram jël mbóotam def ko ci jaam bu ko ba tax na fu ngeen fi fu ngeen fi gisee te waaye teral leen ko te leen ko tànni biir Sëriñ Tuubaa daana wax ne Sëriñ Tuubaa daana wax ne dee leen bari teggin ndax bu teggin jugee gudd fan ne ko doomam fi bàyyi ajjana ne ko ma teeru leen dara leen dee leen mooy safaan ba ndax bu jugee gàttu fan ne ko dooma fi bàyyi saware ne ko ma teeru leen dara leen deeleen mooy ak tooñ ndax kuy tooñ du mucc waaye koy fayu du ñoom deeleen mooy gis seen bopp ndax ku jis sa bopp yàlla réer la te ku yàlla réer seytaane lay womat te seytaane ku mu womat safaan bi la di jëme deeleen mooy wax bakkan ndax ku waxe bakkan ju tontoolu bakkan ngeen féewoo te féewoo lu ne xaj na ca deeleen mooy fital te jaar ci ngir ma ndax kuy féetal ku nekkat fooy fii ngay mujj kon nag sëriñ bi nee na yi moom dañooy fàttali sax ministère Mali waaye sëñ Cheikh ka waxoon na lépp moo ci del seer damay fàtte te màggal gi moom ñu ñëw ñëpp oseefu sëriñ Tuubaa dem te lim na ko jëru ma ci del si waaye sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di sant ñu bokkal sëriñ Tuubaa di sant bokk yépp waaye di sant taalibe sëriñ Tuubaa yi ndax ñoom kat sopp gi ñu sopp Serigne dem nañ ci ba Serigne Touba gën a leen seen seen jëmm gën a leen seen alal gën a leen seen lépp sopp googu ñu ko sopp nag rawatina ndaw ñi bëgg nañ ko sopp nañ ko sopp koo xam ne àgg na ci bëggatuñ dara lu may Serigne loola nag nañ xam ne Serigne Touba lam liggéeyaloon suñ borom lenn lenn képp la ci pay ko suñ borom fayee ci diggam ak liggéey moo tax mu wax ne allahu allahu yansur yansur nii wal xalqu tatbaxu nii fil barri wal baxri za nafin bila darari liggéey bii nag sëriñ Tuubaa bi koy liggéey te àndu ko kenn te kenn dimbalewu ko ci kenn jàppalewu ko ci boo ko sëriñ gaawaan fekkee ca liggéey ba ndax moom dafa bëggoon sëriñ ba mu coom sago ma sëgges merum sëriñ Tuubaa bu mu agsee sëriñ bi ne seex de na nga daal dellu ndax sa yërmande attul nii ma fi nekkee nga di ko gis sëñ Modou Lo Dagana ba mu dikkee da ko nañ ko ko ci gën a yéeme diirub la mu nekk lépp dafa wax ne yadi li mu wax nin karimin naafian samadin laa li darahimi taati min solaytini mës a lekk seen juróomi dërëm wala seen dërëm yi ñu ko daa jox ba dama fa bàyyi ko lépp mu jaayante ko liggéeyal ko xeetu rasulullahi sallallahu alayhi ba liggéey bépp sotti muy alfulkul masoon mu indi ko ne sëri jabaa ngoogu waaye ñëpp ko bokk mboolem ku ku dib julli rek sëriñ Tuubaa tàbbal na la ci biir lii aw si li la si uridu wan faxi bi yàlla waraa yaa muxniyan an mit faxi اجعل رجوعي إلى قومي سعادتنا ولتكفنا يوم جمع الخلق نيرانا وبشر ذوي الإسلام ترا بأوبتي وبشر ذوي الإسلام بعاجل وكن waaye la ci gën a yéeme nag mooy fépp fu muy ñaane la liggéey bay xat-xat danaan bi laa tasabubin min nii bu ma sabab lu mu ko sama ak dellu Sénégal kon Serigne Touba la ak Cheikh Ibrahima Fati seere woon nee na may gi li muy li muy rëy rëy bu ak jikko yi ñett ñi di ñëw bokki boppam bi buur yi ak boroom xam-xam yi waaye Sëriñ Tuubaa may gi dafa dëpp jikko ji kon nag ne ñëpp sant yàlla te xam ne Sëriñ Tuubaa suñu boroom fay na ko fay gi it ba àdduna tukki saa su xëyee day sotti ko te kenn dinu ci dara moo tax lii xew bu yàggut muy mbas mii ba mu amee ci njaareem muy peste ba ba sëriñ bay jaxate wax ci kàddoom yooyu tubaab yi yónnee ci sëriñ bi ne ko yow de niñ la xamee wóor nañu boo ci boo ci ñaanee mu mu tàggoog mbas mi dem léegi sëriñ bi ne ko yàlla suñ borom ñu ko féndi waxtu woo nammee dana jeex rek dana jeex bis tubaab yi xëy ànd ak sëñ Balla Coro ne ko dañoo bëgg gën a leeral siñ bi wéeradi gi fi mu toll bi ñu agsee fekk sëñ bi jëm ci jàkk ja tubaab bi tàmbu di leeral di wax wéeradi gi ni muy faatee ni muy rey sëñ bi ne dem aynama takunu yudrikum almawt walaw kuntum fi burujin mushayyada tubaab bi ne ko damaa yaakaar ne danga ko war a gën a leeral xëy na dafa dégg bu baax li ngay wax sëriñ bi ne ko qul inna almawta allasi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum summa turadduuna ila aalimil xaybi wa shahaada ba bis sëriñ bi xëy ca njaareem xam le ne suñ boom de xamal na ma ne jàngoor ji mu fi andi woon jeexal na ko moo tax la suñu kilifa gu baax ga Serigne Saliou Mbacke daa wax ne yaakaar ju tas miinul yoonu kër Serigne Touba bi ak du Mouhamadou Mountakha wootee bu yàggut ci weeru ut wii nawet bi ñëpp jaaxle te ndox moom xam xam ngeen ne kenn mënu koo lijjanti wér diggi jaaxal na nit ñi ba kenn xamatul foo jëm sëriñ bi ne kat li ci war mooy torox lu tuub dellu ci suñu borom def def tawassul ci njàngum alxuraan ak xasida yi ba mu ko defee booba tolloo na ci junni kaa par bis yu tegal tey ji wax na ni ci juróom la toll kon loolu nag jàpp naa ne ku mu dellu sam xel ku mu dellu sam xel loolu ku mu dellu sam xel yaakaar naa mënatoo gis lu dal sam xel boobaa nag summun bukkumun hummun lay laa yarji'uun rek lay doon kon ñi ngi jaale bu baax ñi nga xam ne wàcc na jub liggéey ndax accident yi metti na waaye nag na xam ne ak dund lu mu yàgg-yàgg boo jund junni atit boo xëyee day jeex te afa in mitta fa humul xaalidun ñi fi des dañ fee des kenn xamul da nga fekk ëllëgam dëgg kon ku jub nag amuk dogg am pëstéef ngir màggal si si màggal si biir Sëriñ Tuubaa bi suñ borom moom la coon na nga xam ne sa tuyaa ba àgg murid yi kat màggal gi bi ko sëriñ bi wootee seen bakkan ak seen lépp lañ jël tey la ko ci sëñ Tuubaa xam ne lu leen ci mën a fekk rek jaral na leen ko waaye dara du leen ci fekk lu jàmm kon nag fi moo koy jeexale mooy ñu xam ne ramziyatu samaani wal makaani mooy màggalu Tuubaa màggalu Tuubaa mooy suñ bis dëkku Tuubaa moom lañ am suma sama kilifa gu mag bu baax moom ko wax sëriñ nag dafa nekk ca njaareem bu ma jumut bokk na ci bis bi woote màggat gi sëriñ Baye Sarr xam ngeen fa mu dëkkoon ci njaareem dana ànd ak yëngu bu rëy rëy fekk sëriñ bi di wax ba mujj kenn déggatut ñëpp jaaxle tàmbalee duru manaat naan moom di la koy sëñ may daa ëpp di ko wax ci seenum xel sëriñ bi ne leen bàyyi leen ko bu agsee dana wax lim ci jublu bi mu agsee sëriñ bi ne ko Babacar am na li nga doon def loo juunu mu ne ko danga bëre bëre ba dàq xare ba daan te bàkkuwoo te man loolu mënuma ko woon moo tax may bàkku sëriñ Tuubaa ne ko Babacar danaa bàkku sama dëkk ba ñuy wax tubaa ak sama jumaa jama fa def mooy sama bàkkaar kon kon nañ xam ne dëkk bii di Touba ak màggal Touba mooy bàkku Serigne Touba te Serigne Touba nag li wax na yàlla suñu borom moo ko xamal lépp am na ko ñëw yëkkati addiya ju bari jox ko sëriñ bi na ko tegal noonu ndax loolu alxuraan daw ko téye ci loxo Cheikh Abdou Lahad mas na ko nekk li fii waaja xalaat cim xelam ne xanaa sama addiya ji ni mu baree sëñ bi da ko da ko gisut sëñ bi gestu wëlbatiku ne ko alam ya alam bi an allaha yara xanaa xamoon yàlla gis na ko mu tàmbalee xalaat cim xelam ne xanaa ah lii de kenn mës koo gis kuy tontum xel sëñ Tuubaa wëlbatikuwaat ne ko allah yaxlu man xalaq mu daat daw jóg kon sëñ Tuubaa da tontu am xel ba mu bindee ne li xayrin taha bil muntaxa kullu si saqa wa yanxoo bihi nahwi chaidun wa sutuqa képp ko nar a taxee di rek suñu borom dana la jël jëme la nga dem feneen furu man képp koo xam ne yàlla suñu borom nam mu ne dara ceew ci taxe nag dana def ci sa nga sopp ma juuloo moo tax ba mu bindaate ne falaahi bi fadlillaahi fii lawxihi jara bi xayrin mihaain doon makrin wala xawfin naar bi na ko seex li nga wax rëy na lool de falaahi bi fadlillahi ne ko xanaa dangaa fàtte ne fàtte wax insha allah suñ bi ne ko xatsha allah kon loolooy mbirum sëñ Tuubaa kon nañ santaar yàlla bu baax te gërëmaat ko ci taw feex jëm ñi defal bañ topp ci ginnaaw sëñ Tuubaa te xam ne képp koo xam ne bokk nga ci biiru njabootam xam le woon na ne ci yow ma alastu biir bokkuñ ca laa la tànne képp koo xam tànna tànnaa tànnaale woon naa la ca kenn mun laa tee ñëw képp ku ma ci boolewut man itam kenn mun laa tax a dikk wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu